Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sëñ Pape di la ziar di le fay di nuyu mbokku yi nga xam ñu ngi di nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam waaw comme ñu ko waxee rek ay hémophilie prévention bi moom dina xaw sant Diop dina du yomb parce que lu tax yow maladie héréditaire la en général maladie héréditaire xam dañ koy donc du du dina pour nit ki def prévention mais li ci am solo ki nga am mu sàmmonte ak feebaram ba nga xamante ni xëy na du ko sonal yenn sonal yi maanaam mu taxaw ci daal taxawaay bi mat ci feebar bi léegi taxawaay bi bokk na ci exemple comme ni ñu ko waxee woon sànq ci premier partie bi éviter lépp loo xamante ni da lay naaj ci mm-hmm. nga xamante ni nit ki day day nekk na feebaru boo xamante ni nit ki day def loo xam ne day tax mu naaj mm-hmm. donc daf koy daf koy éviter su fekkente tamit tamit ki mu dal mi ngi def sport dafa am yenn sport yoo xam dañ koy wax bu ko def mhm. yenn sport yoo xam ni ñoom waruñu ko def mhm. lu mel ni boxe mhm. lu mel ni boxe ñoom waruñu koy def lu mel ni rugby ak yu demee noonu daal yenn xeet sport yi nga xamante ni blessure la ci yomb donc mën na ko mën na ko bañ a def surtout boxe moom surtout waaw ay karaté ak yooyu donc genre yooyu yëpp mën na koy mën na koy éviter daal donc donc bu ko defee tamit muy suivre malade bi malade bi ci boppam soit bu fekkee xale la parent bi di ko suivre wala bu fekkee mag la mu koy suivre euh, malade am mooy di dem hôpital mm-hmm. di ko suivre di suivre feebar bi quoi mm-hmm. donc boo demee rek am na ay kii donc feebar la boo xam ne pap yooyu en général mooy mooy prévention yi wala mooy nga xam ni daal nit ki war na ko mën a def pour euh, wàññi yenn yenn danger yi mm-hmm. waaw loolu daal moo ci moo ci ëpp solo fexe def li nga xamante ni du la naaj loo surtout yenn jeu de risque yi bu dee xale mm-hmm. yenn foo fooyu danger yi wala yu demee noonu mm-hmm. wala bu dee mag yenn yenn foo yeeg yenn loo xam ne daal mën na ko naaj loo daal nay fexe bu mu ci bu mu ci loolu bu koy def su fekkee ci wàllu sport la tamit comme ni ñu ko waxee woon sànq yenn sport yi ak boxe yooyu bom mu koy bu faral di def mhm. donc euh, bu fekkente tamit mag la mhm. euh, muy suivre dem hôpital di suivre feebar bi toujours euh, wala am suivi daal au niveau de hôpital donc yooyu daal moo ci moo ci tane parce que feebar la boo xam tamit daanaka du du wér quoi neexut a neexut a wéral bopp waaw ak loolu moo ci nekk kon comme neex na wéral ndax moom kon ci côté solution dina <laughs> compliqué waaw mais am na garab yoo xam dina ci baax maanaam dina dimbali dina dimbali nit ki ba nga xamante ni soit feebar du ko sonal mhm. wala dina ko may kàttan wala dina ko jàppale ci yenn kii daal. wala muy gën a travail waaw dina gën a defaraat deret jéegi donc donc donc bu dee ci côté euh, kii solution yi bokk na ci muy am jinjeer mhm. di ko def jus di ko faral di naan jus de gingembre euh, bu ko neexee nag mu def ci lem bu ko neexee mu bàyyi ko noonu mhm. mais jinjeer daal moom bokk na ci yi nga xamante ni moom baax na mën na koy utiliser bu baree bari lu mel ni xobi karasol waaw karasol bu amee di ko infuser xobi di ko naan aussi lu baax na ci mën na koo jàppale am na beneen garab bu ñuy wax genn gi dëkk moom it bu amee reen bi euh, di ko baxal di ko naan wala di ko xooj di ko naan moom it baax na ci moom dina ko ci jàppale donc ñett yi daal benn bu ci am di ko def baax na mhm. bu fekkente ni génn gi dëgg da koy jafe mhm. ne wut xobi karasol xobu corossol waaw su fekkee xobi corossol yi da koy jafe mu ci jinjeer mm-hmm. dafa naa la ñett yi moom benn jafe bu ci waaw bu fekkee <laughs> waaw bu fekkee am na buy jafe bay jafe mooy génn gi dëgg peut-être bu dee ñi nekk Europe mm-hmm. parce que xobi corossol sax am na Europe oh. waaw léegi nag utilisation bi nit ki nan la ko waaw bu dee jinjeer bi daf koy def jus mm-hmm. su ko defee jus moo xam mu def ci lem moo xam mu bañ cee def lem mu bañ ko bu ko neexee mais daal di gën moom ko suukar mu waaw su su su demee munu cee ñàkk def suukar nag mu def ci suukar mais daal li ma li ma bëgg wax mooy jinjeer bu ànd ak lem moo gën su ko mënul mu def jinjeer kese su ko mënul mu doog a suukar waaw mais bu ko defaree exemple def ci lem di ko suukaree lem di ko jël lu tolloog euh, demi verre kaas yi ñuy ndekkee rek baax na di ko naan demi verre suba ak ngoon deux fois mhm. baax na di ko di ko alterner noonu. bude kara solo aussi non lay def day wut lu mat 7 8 9 bo maximum 10 feuilles bu ko dépasser bu xasse mat 7 rek baxna 7 kan ba 10 diggante boobu mo baxal ko ci litre ndox ça veut dire infuser quoi ah, tangal ndox sorti ci bay ko bam sedd mu diko nan naan lu toll ak kaasu ataaya genn wàll rek baxna suba eh, ngor deux fois par jour bu koy def dina ko dimbali ci lu bari bu day genn gi dégg nak mom bu fekke reen bi la am reen bi nanguna baxal nanguna xoj bum ci def bax la da ko daan genn walu kaas suba ak ngoon incha allah donc yooyu daal bu ko defee dina dina ko arrangé moom incha dina ci dina yëg changement ci. ren bi nag xob yi mën na ko utiliser tamit. mën na ko utiliser mais ren bi nak mo gën. ren bee ren bi ren ko ci wala baxal wala ko. si quantité bu toll nan ak euh, ren bu toll nan. maanaam ren yi bu fekkoon euh, bu amee bu toll ni baaraamu loxo. baramu loxo wa bo ci abé ñent ren bu juróom pour 1 litre d'eau. 1 litre d'eau wa d'accord moom weexul weexul quoi. Mm-hmm. dafa xawa a tout mant rek. Mm-hmm. neex na ko dimbalé garab bu baax la ci feebar bari bari sax mm-hmm. incha allah. d'accord ñu tàggatoo ko ba ñëw ci euh, vidéo jox rendez-vous ci vidéo bii ñu nga dañuy ci benn garab sax ci réew mi. la. la semaine. ñu ngi leen di jaajëfal di leen joxaat di daje beneen yoon salaamaaleykum wa rahmatullah